ñu ngi dem élection présidentielle on est on est décembre janvier février on est à deux mois euh, et demi de cette élection là euh, amul visibilité Karim Wade Khalifa Sall leur sort élect électoraux ont été ont été ont été ont été juridiquement réglés mais ba tey am na ay formalité yu ci yu ci yu ci yu ci des on ne s'exprime pas euh, sur par exemple Khalifa Sall Barthélémy fay na amendam mais on s'exprime on ne s'exprime pas sur man de 138 milliards euh, bi nga xam ne qui touche Karim Karim Wade euh, Pastef euh, seen candidature ñu ngi ci guddi bu bu nu mu tudd guddi bu bër set bu bu bër setatul c'est-à-dire loolu sax indi na nit ñi à émettre des doutes sur la probabilité que la présidentielle se tienne à date échue mu doon lu mosul am c'est-à-dire ñun mosuñu jege présidentielle muy am dut ndax présidentielle bi dina am am déet vous êtes majorité vous êtes euh, en même temps euh, est-ce que jotul ministre de l'intérieur dugg ci langue gi il vient d'arriver ngeen leeral mbir mi lancer processus bi et que sénégalais yi xam ñan ñoo war a bokk ñan ñoo mën a bokk et puis ñu bàyyi ce débat là sur le report d'abord candidature yëpp y compris celle de Amadou Ba seront soumises à l'appréciation du seul juge électoral qui est le juge constitutionnel du conseil constitutionnel les cinq juges donc foofu coow amu fa beneen bi procédure yi ministre de l'intérieur soxla woo ko mu ngi ci code électoral bi ak constitution procédure bi yëpp xam nañu ko donc y a pas de problème à ce niveau donc lan moo fi tey foog naa ne bu fekkee ne amoon na ñu doon jiixi jaaxa élection danañ ko reporté tey ci communiqué conseil euh, conseil des ministres dégg nga ni le président de la République à convoqué le collège électoral te le texte lui dit quatre-vingts jours avant le scrutin mënoon na xaar ba le 6 décembre mu def ko mais tey ci conseil des ministres ci communiqué conseil des ministres dé dégg nga le décret a été le, le chef de l'État a signé le décret qui convoque le le collège le corps électoral donc loolu waxu caaxal la rek ñi parewul seen affaire la. la République sera respectée et le calendrier républicain sera totalement respecté parce qu'il y va aussi de de l'honneur du président Macky Sall président Macky amul dara lu koy gàkkal ci li nga xam ne def na ko fii ci carrière politique am donc du du waxtu bi les président Macky Sall di ut lu koy gàkkal di wax ay ñuy wax ay report ak ñàkk report élection le président a fait convoquer aujourd'hui pour le 25 février 2024 euh, que je dois que report bi moo gën votre candidat n'est pas prêt. mais loolu appréciation la maa ngi koy profiter aussi di nuyu appréciation Souleymane Jules Diop la l' appréciation de Souleymane Jules Diop. n'est pas forcément l' appréciation du gouvernement et l' appréciation du chef de l' sa aussi il faut il faut que nous sommes dans un pays démocratique ku nekk am na ci droit ni nga xalaatee nga wax li nga gis li nga li nga gisee analyse nga def ko te Souleymane aussi bokkul ci como ci analyse politique. Ah c'est ah. personne analyse politique. justement mais dama ne tey xam nga loolu analyse la woon avant mais tey ci conseil des ministres leeral président leeral nañu qu'il a convoqué le collège électoral donc ce débat est clos.